ñeenti rakan nag ñaari sëlmal lay nekk ñaari rakan yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci dañuy jàpp koor gi di 5 heures 17 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom ñett ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi